Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli ma ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaam yàlla woo bisimil ilaahi ci ay maqaam yàlla woo. Damlo El Hadj Sëriñ Damlo. boo ci wax rek la. ñu bu baax a baax macha allah. yàlla na yàlla na ngi bokk taalibe yi. ñu ngi fi ñëppan ci alhamdulilah tabaraka naka waa waa Xelkom. waa Xelkom ñu ngi fi ñu ngi ci liggéey bi. Hmm? ñu ngi jégalu coono yeeg dérangement yi ndax nekk ci ndigal moom ñu lay woo téléphone di la sonal moom ñu ngi koy tuub. waaw macha allah. waaye studio Salam Vision moom xam nga yow dañoo bokk ak yow lépp. dëgg la te lu mën a xew itam fi ne bu xew-xew amee ci réew mi faaw ñu génn wax ak yow. dëgg la moo taxoon ñu ne xaaral ñu woo la gannaaw am na xew-xew yu fi am te am na génn goo génnoon. am hmm. loo waxoon ci match Sénégal bi doonte nag suñu borom dogalu ko mën naa jaaxal jaaxal ñu bëri wala mën naa jaaxal sa ñu bëri waaye man démb rek bi ñu jokkoowee man ak yow xamal nga ne ma man yaa nga ne ma sarax yi ma waxoon nañ ko def ak sol yu weexee yooyu man yaa ma am na lenn ci ñu ko def waaye ñëpp matewuñ ko ba tax na gis naa ci beneen résultat boo xamante ni Sénégal mën na cee ñàkk bañ a am ndam waaye bugguma ko wax de tas ay yaakaar ma bëggoon ngeen nga dellusiwaat ci loolu ñu door a wéel rek waaw ginnaaw ba la nuyoo nuyu mboola ñu ne ci plateau bi. Mm-hmm. ak mboolem ñuy seetaan Salam Vision fii bi réew mi bitim réew. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu baax bi leen ziar. am na yàlla nangu yow bi. waaw xam nga man li may faral di wax rek ci samay kàddu ñun. Mm-hmm. Euh, dañoo dëkk ci réew mi. am fi taalibe am ñun fi yaakaar. bu doonul sëriñ doonul dara dañuy am lu ñuy présenté ci yoonu murid. dëgg la am lu ñuy présenté ci réew mi. wax naa ba ne. ñu may déglu ñëpp xam nañ ma leen ko fu ma toll. Mhm. man football ak ay làmm du ma ci wax. dëgg la bu dul Sénégal te la tax ñu ci àddu mooy wax ak kilifa. Mhm. ban am ci ndigal ñu wax ko. Mhm. ndax réew mi ñu nekk di Sénégal daa na xare waxal. dëgg la de. te euh, ñi ciy comprendre du bari. te am na nooy waxe bu safaanoo sax. ñu bari mën nañoo jàpp lenn wala ñu jàpp ni Serigne Ba waxoon lii te lii amul. dëgg la moo tax am na loo xam ne sax du neex samay taalibe bu ñu sañoon duñ ci gën di wax. Mhm. waaye bu ñu jël si waxee ci marché démb bi maa ngi xel koom. Mhm. àdduna bépp xam na loolu te ñuy seetaanoon yi ma defoon ci YouTube bi. Mhm. dama ne leen woon après damay dem Qatar ginnaaw dañuy nekk ci liggéey. boobu te Coupe d'Afrique bi nga xam ne ñu ngi woon ci yitte marché bi yëpp jox ko yitte. leen la li mooy wax Sénégalais yi ñu def ay sarax. am na ñenn ñu ko def yónnee ñu ko ci WhatsApp bi. xëy na nag am na ñenn ñoo xam ne tamit defuñu ko. waaye li ñu ci bëggoon rek mooy ndam te match bi. Mm-hmm. gis ni mu demee xam ne Sénégal moom moo mën ndam li. dëgg la ñooñu. bëri na bit yoo xam ne sax Sénégal da ko waroon a dugal. Mhm. te bit yu détourné la. Mhm. waaye nan xam ne ñi Sénégal di ñaane. Mhm. noonu la ñooñu di ñaane. noonu la bëri tamit ñu nekk ci réew mi di yàq. ñii di Sénégal du xaaj du jeex. dëgg la de. ndax bëri ba ci politique saa yi sax. am na ñoo xam ne bu ñu sañoon Sénégal ñoo am ndam ndax dañu jàpp ne boo amee ndam Macky Sall am ndam te fekk demul noonu. mais nan dellu si xel yi te xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk. te xam ne li may toujours ne réew moo xam ne bu doon tàkk bu ca sa alal bokkul sa doom bokk ca ba sëriñ bi nga yaakaar wallahi ba sa arali war nga faa ñaan jàmm wallahi la di wax te ñun lu ñu génn ba di wax rek hmm. jàmm dong lañ ci bëgg moo tax ñu di ko wax dëgg la de te même bu dul ñun yaakaar gi ñu Sénégal yi yaakaar hmm. ak buñ sañoon ñu wax ci rek addu ci suñu borom dogal hmm. yaakaar jooju bëgguñu koo tax ci benn Sénégal loolu moo tax nag mag su euh, ému bi ñuy jóg lu baax résultat yi noonu rek la mën a demee mais nan xam ne day lii gën bu defee ñu sóobu ñaanaat ci yeneen yi am na mooy li ci des. Mhm. mais ñun xel ko. Mhm. lu ñu man ti ñaan yàlla danañ ko def. rawatina dëkk boobu nga nekk moom ci liggéey bi. Mhm. Ah? man ko rawatina dëkk boobu nga nekk. Euh, mais sëñ Dame Lo tey ni nga ko waxee li li topp sa ginnaaw bëri nañ donte budul sëriñ buy ñaan wala dara waaye danga nga doon kilifa diine. waaw ah. daa doonaat tam li nga xamante ni fi nga wax dëgg yàlla mooy doomi réew mi muy sénégalais nga. ba tax na yow xaaroo ku ku ci def ak ku ci deful da ngay gis di wax rek na ci ñi def waaye li ngay def moom yaa ciy jiitu ñëpp. ndax li ko waral mooy sénégalais bi nga xam ne moom nga doon muy citoyen bi nga doon kon yow da bëgg sa réew moo tax ngay def li ngay def mais sëñ Dame Lo euh, euh, euh, lan lañ mën a xaar ci yow pour nga taxawu ko taxawee ko équipe nationale bi ci matcham ñaari matcham yi nga xam ne mooy ci des te mooy mën a tax tey mu jàll ci deuxième tour bi ndax donte ne woon nañu fi ne lu gën a a mooy Sénégal moom mën naa dem ba quart de bu jël bu jëlul coupe bi waaw xam nga loolu duñ koy wax mm-hmm. boobu xel kom ñëwagul mais nee naa leen maa ngi xel kom mm-hmm. xam nga nag nekk xel kom di liggéey bokkul nga bàyyi lépp nekk ci yitte yooyu. dëgg la. te nag man damay sàkk ginnaaw yàlla damaa jàpp ne suñ saali woo taxoon. wallaay ndeysaan. kon nag amul lu suñ saali di woote. Mm-hmm. may nekk di ko boole dara nag. Mm-hmm. lu xëy na li mu tombé la waaye nag euh, ba tey tamit dafa am loo xam ne. boo ñëw dara ndax yaakaaru doomu adama yi. ndax ñu ngi wàcc yàlla ne li may xëy di ma woo ci ay appel. ma vocal. ngir Sénégal am ndam rek ak ñoom dañoo am ci ñun yaakaar te dégluwuñ ci lu du suñu kan. mënu mhm. mën a wax nu mu toll ci kaw suuf. dëgg la loolu li ko waral mooy li leen waxoon ci coupe bi nga xam ne. Mhm. avant dara rek dañoo wax résultat yi wax yëpp ni muy demee suñu borom sot suturaal ñu ci. Mhm. yaakaar jooju rek la ci nit ñi waaye nag li ñuy wax suñu bopp la ñuy wax Sénégalais yi ku mu mën di doon ci réew mi. moo xam ne sëriñ mooy xam nga kilifa diine mooy nga xam nga doon kilifa aada. li ñu sàkku ci yow mooy nga ñaanal réew mi am ndam. li ne sàkku mooy nga ñaan réew mi qualifié mhm. bu ñu qualifié Sénégal amul ndam ku fi ne rek am nga ndam parce que gis nga Sénégal a doon football démb tax na rythme yu bari ci dëkk bi ñu fàtte mhm. muy coow politiciens yi muy du mën di doon mhm. kon nag am réew boo ci bokkee te yàlla dogal ni lu ñuy xëccoo loo mën a def ngir sam réew jël ko def ko. mooy dëgg bëgg sam réew bokk na ci jaamu yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wa wax na ko. Mhm, kon nag muy kilifa diina muy kilifa aada. Mhm. kii sëriñ bi toog dan maa woo ak woowoon ma ak mhm. dama xam dara ci football. soo ko mënee def ko ci sam réew bu ci xaar kenn. parce que am na loo xam ne fayu yàlla moo fayu doomu aadama. dëgg la de xaalis àdduna day jeex. te wax dëgg yàlla loo man ci seen réew jël ndam demal nga def ko bu du dara sa waa bu du dara sa soxna bu du dara sa njaboot kon nag li ni man ci ñaan yàlla mooy ñaari merci yëpp suñu borom may ñu ci ndam sedd guy incha allah bu soob yàlla te am nañ ci yaakaar bu baax nag alhamdulilah ndax max bi passé dafa am nu mu demee mm-hmm. te yii di ñëw nag dana am lu bari loo xam ne ñu ko jaral mm-hmm. ngir jëmmi yàlla ngir ne ñi am ci suñun yaakaar surtout ak li ñuy xëy di ñu woo ci Sénégal yi mm-hmm. moo tax bii di ñëw ko dogalam Euh, danañ ci jël yëpp yëpp matuwaay yu ñu ci a jël. Mhm. Euh, ngir ngir ngir Sénégal am ndam incha allah doon nañu xel ko. kon daal su ma la déggee bu baax mooy dina la dina dina la yokk gën jaral daal. waaw maanaam bii moom dana wuuteeg euh, en tout daal lépp luñ ci mhm. dana ko def ndax wax ndax xam nga génnoon naa fi wax score yi. waaw. ci coupe du monde beeg nangam. Mm. waaye sénégalais day bëgg ndam ba dégg-dégg du am. loolu waaw te li wax ne boo nekkee ci réew. Mm. am ñu la fa yaakaar am ñu jébbal ci yow. Mm. bokkut ak rek ki jóg ne day ñaan ab sëriñum ñaan kat la. dëgg la de même bu dul ñaan doonu dara ci réew mi leen bokk am fii taalibe bi. Mm-hmm. te bëgguñu leen loo xam ne suñuy taalibe dañ ciy am defet wala ku ko wax seenum sëriñ mu métti leen. dëgg la donte wax ci football sax wóoruñu waaye Sénégal mel noonu ak kon nag bi yoon du jor ñu wax loolu waaye liñ ci bëgg mooy ne ñëpp manko rek ngir jëmmi yàlla ak yeneen mhm. ñaanal Sénégal am ndam mhm. te ku ko man rek bii ñëw tarax wi passé wu lu dul ndox la mhm. ak tàndar ndox ak ku ko mën nga génne ko ci réew mi ngir yàlla ñaanal Sénégal am ndam incha allah rabbi yàlla beneen ba cay toog man naa bu booba mu fekk ñu jóge xel koom incha allah rabbi yàlla waaye daal ñu ñaan ndam ñaan yàlla kilifa ñaan yàlla sutura ni sànguy malaanum sutura mm-hmm. ban ni mu ko waxee woon mu demee noonu amiin su ko defee la ca des ñu yeggale ko dem Qatar loolu daal mooy yéene yi yal na ko yàlla nangu tamatol lépp dara jëm ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ah, amiin amiin ñu ngi ñal ñaanal nga nekk wax dëgg yàlla liggéey bi gaaw mat ci ndigal nekk tam ba nga mën a génn dem dem Qatar ndax yow sa dem Qatar fi mu moom askan wee bëgg moom hmm. mm-hmm. askan wee bëgg Hmm. Euh, xanaa kàddu gu mujj rek lan nga ñu mën a digtal digtal ko askanu Sénégal gépp nga xam ne ñu ngi lay teewlu à travers Salam Vision plateau bi fees na dañ doon waxtaan ci match bi nga génnoon moo tax sax ma am yëg-yëg woo la xamal leen ne seen jaam loolu ñu ngi déggante ba démb déggante nañ man démb xamoon naa ci score match bi loo xam ne wax dëgg yàlla bugguma ko woon wax ni li daal seen jaam loolu bi ma ko waxee dama ci yaakaar moo tax bugguma nga xam ne ñu ngi lay ci Salam Vision ñu ngi lay suivre ci Kiki TV waaye ñu ngi lay suivre itam ci sa chaîne YouTube bi nga xam ne mooy loo alalu Serigne Saliou ba ci sa TikTok ndax nee naa àdduna euh, gaa yi buzz la ñuy wax waaye yow buzz bi nga yor moom Serigne Saliou wala ko sax defe naa. waa man moom damay wax ñu bëri ne. Mhm. mooy man képp ko may seetlu ci internet wala fayub télé wala su fayub site. Mhm. ngir wax ci génn moom doo ma ca gis. ndax nag amuñu jot googu. Mhm. te amul lu ñuy wax rek ngir ki ñu gëm wala loom dañ koy wax ngir Mm-hmm. bu ñuy wax dañuy wax te yàlla tax ak sunu réew. Mm-hmm. bu dul footballu Sénégal bi ma ci tàmbalee wax yàggul. Mm-hmm. te lu dul loolu nit du ma gis ma génn ba wax ci dara. dëgg la adduna du neex nag ba may génn woote xam-xam wala nit gis ma may wax ci xam-xam wala yeneen déedéet. waaye nag euh, liñ mën a wax adduna daal te di ko wax réew mi mooy. nan ñaanal réew mi jàmm ñaanal réew mi ndam. te li ma mën a wax nit ñi mooy. nit ñu dimbali ngir yàlla kuy ab sëriñ foo mën a nekk ci àdduna da Mhm. sa waa këram fi sa njabootam fi sa léppam fi mhm. sëriñ bi nga su ko sax ci réew mi la bu réew mi doon tàkk dana def doom baa baa soxnaam baa waa nag li ëpp solo ci adduna mooy ma di ko wax ñëpp lillaay mhm. fu waay nekk te mën a ñaan na nga ñaan Sénégal qualifié ñaanal Sénégal am ndam ci ñaari match yi loolu rek mooy ndamu ñeent leneen lu waaye wax lu dul loolu yàlla xam na ne da ngay sonal rek nañ ñaan Sénégal am ndam Mm-hmm. ñu man ko te bàyyi coole bàyyi nangam. Mm-hmm. muy sëriñ ba mën a ñaanal muy kilifa diina ku man di doon. Mm-hmm. war ngaa ñaan loolu ngir seen réew bi loolu mooy yëfi kon nag ku ko yàlla man loo te dégg sama kàddu daal man te déggal ma. moyen yoo mën a def ak loo mën a ñaan Sénégal am ndam te kilifa na ko def. bu du dara muy yaakaaru xale yi bu du dara muy ndam loo xam ne Sénégal ko yam mm-hmm. am réew ku ca nekk boo sañoon foo tollu ndam nga yam kon nag nañ nañ nañu nañ ñëpp ñaan loolu mm-hmm. ngir jëmee yàlla ak yeneen bi mm-hmm. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu mboolem ñi nekk ci plateau bi ak mboolem ñiy teewlu rek euh, Salam Vision yëpp maa ngi leen di nuyu macha allah yéen euh, amuñu seen fay ñi ngi faya ñi ngi ñi ngi fasalel ñëpp di xel kon bi incha allah bu soobee lan nga mën a wax ci Salam Vision mi nga xam ne moom sa télé bopp la moom. waaw ñooñu Salam Vision li ma ci mën a wax mooy rafetlu rek ndax moom diine ak l'islam lay wane ak lu baax. Mm-hmm. te ñu ngeen fi dalal ñëpp borom mi xam-xam le mm-hmm. li leen di ñaanal mooy fu télé yi di yegg site rek ngeen yegg fu ko raw rek. ñaan jooju dong lan am ci yéen ndax yéen it amuñu seen fay. ndax lu leen jaaxal ci réew mi wala lool leen bëgg a xam. Mm-hmm. da ngeen ñuy contacter laaj ñu ci. muy lu askan wi dégg muy lu askan wi ñàkk dégg. kon nag yéen awma seen fay. dëgg la nit nit ñu baax ngeen wax dëgg yàlla. jërëjëf sant la gërëm la bu baax a baax ñaan la yàlla suñu borom mami doolu laa taxaw doolu lay guddal saw fan gën a wéral say cër te yëgali mbooleem naa li nga xam ne naalal nga ko askan wi naalal ko saw njaboot naalal ko mbooleem kuy sa soppe wala muy sa xarit muy sa am di jàmm euh, ñaan tam ci dara ji yonent yàlla Muhammad ba xam naa ni moom ku Serigne Saliou jox ndigal moom ndam rek nga ciy daal di jëlee wax dëgg yàlla kon ndam tam bu ngeen ko amee bu leen ñu tam bu sant la gërëm la ñaanal la itam bu baax a baax ñaanal mboolem internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre travers Salam Vision euh, ba ci ngeen suivre tam émission yi di ngeen ko gis tam ci chaîne Lo wala beneen chaîne YouTube bu fi nekk ndax bëri ci loo xam ne moom buñ ko amee ci moom chaîne yu bëri ci ñun lañ koy jël see moom macha allah bu nekkul Touba nekk mais nekk Ndakaaru ci ñun lañ koy jël kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox dig daje incha allah xam-xam yi nga xamante ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision. Thank you.